tey moom njàngat li ginnaaw bi ñu leen nuyoo bu baax a baax jàmbaari Sénégal yi nga xam ne ñoo dem fële nga xam ne moo nekk Turquie te président Erdogan fekk leen ci seen digg liggéey nga xam ne sénégal képp ku ko xam xam ne fu mu mën di ne jàmbaari fàkk tëdd la cay doon ak liggéey boo xam ne bu mucc ayib la ngeen gis leen noonu ñu nekk ay sécuriste ci maanaam doon dimbali ñi nga xam ne ñooy waa Turquie ci tremblement de terre ba nga xam ne moo am ca Turquie moo métti lool Sénégal jël leen yóbbu leen nag. reconnaissance la ki nga xam ne mooy président Erdogan am ci moom wala am ci ñoom ngeen gis leen jàmbaar yi ñu def li nga xam ne mooy liggéey boo xam ne bu mucc ayib la liggéey boo xam ne daanaka jàpp nañ ci ba ñu baree bari ci ñi nga xam ne ñoo làqatu woon ci li nga xam ne ay doj yoo xam ne daanaka bi suuf si màbbee loole lépp daanaka ma nga commencé jaar ci yoon ci ndimbalug sénégalais yi nga xam ni jàpp nañ ca am taxawaay bu am solo boo xam ni moo tax taxawaay boobee réerul benn yoon ci Erdogan mi nga xam ni ngeen gis ko noonu ci image yi moog jàmbaari sénégalais yi